nee na kat yéen waxambaane yi li ma leen njëkk a xamal mooy da leen wóor ne sunu sinante bi kat ñaxututa xam yi bu baax a baax ndax ña ko xamoon dëgg-dëgg te sellal dañoo wéy nga xam ne boo dee xool sunna daal day mel ne kër goo xam daa gent ña fa nekkoon bañ fa toxoo yàgg na xool bu baax a baax mooy tax nga xamee ni fii kër fi nekkoon da des ci jeexit kër ga daal bariwut mooy sunna yi daal di ma dem nee na boobu ba xaw a raaf ba nga xam ne xam ko dëgg dëgg ci yooyu jamono lu jafe-jafe la te la ko waral rek mooy ña ko xamante di ko xeñtu booba dañoo dem kat ni sunna raafe noonu la yoon tasawuf nga xam ne moom la gaay yu baax ya awoon tam xaw a raafe ndax dëgg-dëgg tasawuf ci yooyu jamono moom it gis ko ci aw te man caa awale yooyu jamono jafe na lool tax mu ne jikkoy sëriñ sa nga xam dañoo juboon te am leer te sax ci xam-xam noonee sunu yonante bi raafe noonu la seen jikko ya ak seen jaar-jaar yi ñoom it raafe ba naqaree xam dara dara daa wax ne jaar-jaar yi gaa yu baax yi fi jiitu woon dañ koo bàyyee bàyyi ba kenn xamatu ko topp ay bidaa yoo xam ne rek ñi fi nekk léegi ñoo ko suweer mu mel ne dara la te ci dëgg-dëgg du dara kon ndegam xam dëgg-dëgg dafa jafe da ngeen gaawantu te seenee xam bu wér a wér xam gu sell te yàlla tax leen ndegam noonu la xam dëgg-dëgg jafe nag ku leen di aaye jàng ba xam lu baax man koo topp rek xam leen ne daa wuutu seytaane lu seytaane den yàq mu di ko ko yàqal ku leen di aaye daal jamono yi jàng ba xam dëgg-dëgg lu baax ba mën koo xeñtu ku leen koy aaye xam leen ne seytaane la wala boog daa wuutu seytaane di yàqal doomi aadama yi ñi leen seytaane di yàqale kooku nag nee na bu ëllëgee rek yàllaa koy fay jëfam ju bon jooju nga xam ne moom la jëf ku def noonu daal bu ëllëgee yàllaa koy fay taxawaayam bu ñaaw boobu mu taxaw nee na jamono ji ni nga xam ne moom la ci réer gi yaatoo ak xam lu baax ak topp ko ni mu ci jafee képp kuy aaye nit ñi jàng ba xam lu baax loolee kon da leen di woo rek ne leen kaay leen ci bidaa bu ñaaw bii nga xam ne ku ko topp rek yàqu ndax jëf moom nee na bu antaku xam rek la muy yàq mooy ëpp la muy defar mooy jëf moom faaw rek day ànd ko xam mbaa du baax nee na xam lu baax te di ko def ak xam safaan ba te di ko sori bu baax a baax ngir yàlla nee na loolu daal ci la ñuy amee yiwu àddina ak alaxira yiwu àddina ak alaxira daal yépp ñu ngi koy amee ci xam lu baax te di ko def ngir yàlla ak xam safaan ba te di ko moytu ngir yàlla xool tagg xam-xam ak jëf ne la ñoom ñaar ñooy tax am yépp yiwu àddina ak alaxira mu ne la nag taxul ñu yemoo xam-xam mu ëpp daraja ndax daa mel ni xam-xam mooy fondement bi nga xam ne bu fekkee amoo fondation tabax du mën a jóg jëm kaw waaye ba tey nag boo amee fondation kese te tabaxoo itam doo am foo dugg kon ngay boole xam ak jëfi waaye mën laa fexe ba jëf te amoo xam waaye boo xamee te jëfoo itam day mel ne ko fond rek bàyyi tabaxut jëm ci kaw su boobaa du am fu mu dugg day sonn rek ñu ne kuy jéem a jëf te la muy jëf xamu ko jëfam jëpp day mel ne pënd bu ñu wasaare rek mooy du jariñu ca jëfam jooje nee na boo amee xam-xam bu bari lu mu bari bari te jëfewoo ko rek kon yor nga lu ama am njariñ sonn ci coono bu rëy rëy te jëriñu woo ca mel ne mbaam xam nga mbaam tey boo ko sëfoon ay téere yanu na lu am njariñ dara ca sonn bu nekk mu lang-lange ko fa waaye du ca jëriñu nee nag xam-xam bi it noonu la bu fekkee ne kooku jëfewu ko du ko amal njariñ da ca sonn ba noppi du ca jëriñu nee na yéen mboolem waxambaane yi maa ngi leen di bëgg a laabiré laabiré boo xam ne da ngeen ko nangu bu baax a baax ndax ku ko nangu rek daal di amu gindiko da ngeen farlu ci sàkku xam-xam te yàlla dong dong tax bu leen ko def rek ngir ne diw maa ko ëppale xam-xam wala diw ëppale wu ma xam-xam ak di ko puugaree wala di ko daraja woo ne loolu ëpp naa def da ngeen ko xamat na ngeen jéem a xam xam-xam bi rek te yàlla dong tax bu leen jublu ci xam-xam bi rek nit ñi dëgmal si leen topp seen gannaaw wala nekk ci kanam seeni maas jiitu ñu topp ci yéen loolu daal nee na yëfi àdduna rek la da ngeen di jàng rek ngir xam lu baax def ko ngir yàlla ak xam safaan ba moytu ko ngir yàlla ak ku jàng te yàlla taxul rek mel na ngir yi mu wax léegi ngir yëfi àdduna kese yi rek day mel ne kon ba ngay màbb diineem te yëgu ko ma ngay jaay àllaaxiraam di ko jëndi àdduna mi nga xam ne amul solo te kon jëfam sànku na mu sonn ba noppi te jëriñu wut nee na daal képp kuy jaay àllaaxira jëndi àdduna mu ñàkk solo mi xamal ne kon perte nga ca sam njaay amoo ca dara dara tono nee na koo xam day jàng te yàlla taxut boo ko jàngalee xam-xam ba day mel ne kon yaa ngi koy dimbale ci mooy su boobaa da nga bokk ci bakkaar ba day mel ne ku fekk kuy def ak luxóor nga jaay ko jees yi maanaam ngànnaay la mu koy defee na muy amee bàkkaar ci loola ba tey moom miy jàngal kay jàng te yàlla taxut noonu la ciy amee bàkkaar nee na bu ngeen dee tàmbalee jàng xam-xam da ngeen ciy fas yent yi muy bëgg a wax nee na yent yi mooy booy tàmbalee jàng da ngay fas yéene génn ci réer gindiku ba xam fa ngay aw loolu ngay njëkk a yéene ci njàng mi ñaareel bi mooy fas yéene jëriñ bindee fi yàlla ci xam-xam bi nga xam ne moom ngay jàng ñetteel bi mooy jàng ngay jàng nga fas yéene ci dekkal xam-xam dundal ci xam-xam ndax xam nga xam-xam bu fekkee ña ko xamoon rek ca lañ yem keneen jàngaatu ko ah kon xam-xam day dee donte jàng ko te jàngalewaatoo ko du tee dundal nga ko maanaam boo ko dee jàng nii donte doo ko jàngalewaat te du tee yaa ngi koy dundal ndax doolik nga ci li mu borom xam-xam ya teew nag boo ko mënee jàng ba noppi jàngalewaat ko moom moo gën du ko ñeenteel nag nee na mooy nga fexe ba loo xam rek jëfe ko ngir yàlla kon yent yi nee na booy tàmbalee jàng moom ngay fas zaruq sëñ bi dana koy tudd lu bare bari sëriñ bu baax la nee na am na yaari bay di wax yoo xam ne daal ku yeewu boo ko déggee war caa xamee sa bopp bu baax a baax te moytu loolee muy wax dal la daa waxam ne kuy wut xam-xam ngir rek bëgg koo xëllantoo borom xam-xam yi wan leen ne li ma xam xamu leen ko mbaa bëgg cee weranteeg ñu gàtt xel ñi wala am ci daraja rek fi kanam doomi aadama yi nee na yii kum tax jàng xam-xam ëllëg sawara rek ngay dem ànd ak perte bokk na ci tegg yi ni képp kuy wut xam-xam mu fexe ba di bañ a lor benn jullit ah ndax kuy wut lu baax du tooñ day jéem kay buñ ko tooñee mu jéggale waaye nay moytu moom di wut xam-xam ak lu baax ba noppi nag di lor benn jullit te bokk na ci teggi ni booy wut xam-xam da ngay farlu ci jox farata yi ak sunna yi nga xam ne yu fetliku lañ góorgóorlu ca bu baax a baax na nga moytu nag rawale ak julli mooy na nga moytu ak julli raw la bañ koo julli ba waxtu wa jàll te du ngànt nga xam ne yaa ko tey loolu moom yeexe julli ba waxtu wa jàll daa bokk ci bàkkaar yu mag yee mag ndegam yaa ko tey bàkkaar bu rëy rëy la bokk na ci teggin kuy wut xam-xam lam xam daal mu néewoo mu bari mu tawee ca bu baax na nga koo xablewaat bu dee téere itam mën na nga koo ablewaat kenn mën caa jariñoo kon képp koo xam ne daa xam ba noppi nay ca faaw rek balaa faatu yàlla nattu ko ne bokk na ci teggin yi kuy jàng muy góorgóorlu ci fonk xam-xam bi fonk goo xam ne àgg ci jumtukaay yam koy jàngi sax mel ni àlluwa mbaa téere da koy fonk lool ba ni mu koy bëgg a waxee yooyu ci topp da ngay fonk jumtukaay yi nga xam ne sax ci ngay jàng xam-xam bi ba doo teg mukk ab téere wala àlluwa wala kayit ci suuf téere da nga koy ormaal ba di ko teg ci kaw boo ko rombee sax ñu teg ko fi suuf nga gaaw yëkkati ko tàncu mooy ba mu demee ci wana wa mu raxas sobe sa ak ndox loolu mooy tàncu su demee ci wana wa ba génn nga xam ne kon loxoom laal na sobe ndax da doon raxas sobe sax ci loxoom kon bu génnee bu mu jekki-jekki daal laal téere bi na raxasaat ñaari loxoom bañ set ngir jubloo màggal li muy bëgg a laal muy àlluwa mbaa téere mbaa kayit bu ma nee jàpp sax nee na jàpp ga moo gën door a laal nag téere ba mbaa àlluwa ja mbaa kayit wa ko defee rek mu ànd ak màggal xam-xam bi ormal xam-xam bi daal di am tuyaaba bokk na ci teg yi nii kuy jàng xam-xam mu fexe bay fonk ka ko koy jàngal ak mboolem sax borom xam-xam yépp rek mu fonk leen rawante na ka koy jàngal di leen liggéeyal di leen màggal ngir yàlla ndax nee nañu kem ni nga màggale borom xam-xam yi rek noonu la sa njariñal xam-xam di toll nee na am na juróom benn yëf yoo xam ne nee nañu wares naa sàmmoon teg moom booy sàkku xam-xam dana tax nga àgg fa nga jëm bëc njëkk mooy na nga mën a muñ ab xiif xiif bi nag moom du ëpp ba ngay tàyyeel mbaa ngay wéré di mbaa ngay tàggoo sawo da ngay fexe rek bu booy lekk bala ngaa rek bàyyi te bala ngaa lekk rek xiif loolu rek boo ko defee doy na waaye bul ëppal xiif bi ngay def lu yam rek da ngay ñëwi xiif kon ni gaynde ñëwi ab xiif ñaareel bi nee na mooy nga yàggal sa jataay fa ngay jànge mel ni ab ni am tan mën a yàggee ci fa nga xam ne fa ngay faja aajoom yow fa ngay jànge na nga fa yàggal sa jataay di déglu la nga jàngoon ak xamlu loo xamutoon ak laaj lu la lëndëmoon ko defee nag ak di ak di ca sàkk waale ngërëmal ka lay jàngal ñetteel bi mooy xam-xam bi ngay sàkku da nga ciy xër lool loo ci am rek xeeb ko bul def ko gaaw a doylu loo xam daal jàpp ne li nga xam doy na déedéet da ngay def rek loo xam rek mel ne xamoo dara waaw nga xam ne moom daal foo toll da nga ciy gën a xër rek loo ci am rek xeeb ko mel ne xaj ni nga xam ne moom li xëre ci la muy wut na nga ko yitteele ñeenteel mooy na nga lewet neex deret ba mel ne muus xam nga muus bariwul bariwul njariñ waaye gis nga nit ñi niñ koy fonke di ko yor ci kër gi di ko tibbal añ ak reer di ko toppatoo te du leen defal dara daanaka waaye rek noonu mu lewete ak noonu mu mel rek looloo ko ko may kuy jàng xam-xam nag na jéem a amee jikkoy muus jooju le xaas di ko juróomeel nee na mooy day mën a muñ bànneexu jigéen ñi nga xam ne moom la mbaam xuux mën a muñe bànneexu jigéen bu mu yàkkamti di wax naa damay daal di bàyyi njàng mi ndax takk sama doomi nijaay mbaa sama doomi ndey damay bañ mu raw ma bàyyi mel noonu déedéet na farlu ci li muy def rek wut xam-xam bu baax a baax rek jigéen ñi moom duñ jeex saa yu àggalee li muy def rek daal di mën a am soxna incha allah ne juróom-benneel bi mooy nangoo muñ toroxte ni mbaam mën a muñee toroxte mbaam loo ko teg rek mu tegoo ko te lu am rek ci lekk mbaa naan mu doy ci moom wuute naag fas buy wut xam-xam nag lu ñuy sol mbaa lu ñuy lekk mbaa fu ñuy fatu muy fu ñuy tëdd ak a nekk loo ci am rek doy loo ko sëkk mën a muñ lool rek na moytoo jekki di wax naa war na ma am nangam war na ma mel nangam nangam laa war a sol nangam laa war di lekk fu mel nangam laa war a fàttu yu mel noonu bu dee wut xam-xam bu mu ko faale na wut rek xam-xam bi mu jaral ko lu ne lu mu taseel rek muñ ko ba kere muy am li muy wut mu ne nag yi mu wax ni muy juróom benn bu ngeen bëggee xam-xam bu am njariñ da ngeen ku ni wuute